comme dañ koy faral di jël di def ndànk-ndànk luñ ci for rek comme duñu ñu doomu daara mhm. suñu suñu kaamil des na mhm. suñu njàngin des na waaye suñ ko jëlee dañuy commencé rek ci kaw di wàcc ndànk-ndànk rek buñ ci amee benn xisib wala benn nisf mhm. wala robo sax baax na waaye ndànk-ndànk rek ba keroog ñuy pare mën nga ñu mën nga ñu jàngal si kaw ñu dégg ba xam de bu ma jàng loolu bàyyi naa ko ñoom oustaz tay rek ñoom oustaz Tine jàngal laa koy bàyyi. jàngal tuuti rek jàngal tuuti toujours daal noonu la ñuy dooree tuuti defe naa ci suba bi ñuy kii ñu ngi yemoon ci sóoratul Kahf bi donc na la ñuy jàng suñu paree ñaanal suñuy wayu ay daw mhm. ñaanal ñi fi nekk di dund waa ñaanal réew mi ñaan jàmm kon saa su ne noonu lañ koy doxalee suñu paree woon nag loolu jublu ci liggéey bële. Mhm. kon jàngal ñu ñu dégg tuuti. <laughs>